xam yow en tant que citoyen sénégalais ban jàngat nga am ci discours boobu. je suis un vrai citoyen. et d'ailleurs sama sama téere bu mujj maa ngi ko tuddee imam et citoyen boo xam ni presque amul benn question bu ma ci traité wul j'ai un ami philosophe. bu ma invité woon ci benn émission ci rajo université bi. bi nekk fële UCAD. moo ma ci invité woon ci livre boobu. mu lire ko hors matière mu ne mais tiens mu ne mais j'ai j'ai relevé au moins 50 thématiques yoo abordé mu ne ma ah bon oui c'est très riche maa ngi ciy wax affaire maltraitance animale mm-hmm. maa ngi ciy wax affaire mendicité infantile mm-hmm. affaire bonne gouvernance mm-hmm. affaire euh, affaire euh, Sonko aji aji Sarr maa ngi ko ci traité euh, ak yeneen ak yeneen affaire Covid bi dañuy tëj jàkkee wala déet mu mais j'ai relevé cinquantaine affaire environnement mané ne ko mais oui sama parcours moom ko may ak sama formation ak sa curiosité avec le fait que je suis pleinement imam et et citoyen alors recevons des euh, déclarations déclaration c'est vrai donc techniquement nous utilisons le terme report mais conséquence le le report. Eh le président bien sûr que de communication il m'a dit d'éviter le terme report il a préparé d'abroger. mais ce que vous savez, su amul la ca top du am. Mhm. soo dindee loolu mooy la ca l'homme du am. Ah, mais communication. communication parce que nous convoqué le collège électoral bi euh, loolu moins. campagne bi mënul démarrer la preuve mooy ñi ñëw ba ci buntu RTS ñu joxoon leen temps tu ñu leen du ngeen dugg kon kay mooy reporté nañ ko alors ni ma ko dundee mooy bett na ma man personnellement c'est-à-dire que ma évaluer en tant que euh, citoyen di ko xool euh, je me disais que alhamdulilah rabbil alamin dem nañ ba toll fi ak fi ñu jógee depuis trois ans ak li fi xewoon dem nañ ba toll ci gars yi war a commencé enregistrer ak dem sur le pour def seen campagne ma ne alhamdulilah rabbil alamin lañ soxla campagne discuter euh, programme plateau xumbal ci en deux semaines trois sénégalais yi dem exercer droit mhm. ci un président c'est très important dans un ñu xam ne kii président bu amee ay contestation ñu recours après conceptionnel constitutionnel proclamé président bi kooku ñu passation de service mu nek président xamné 5 ans yi di président lu ñuy politique lu ñuy def ñu donc président Macky report bi mu def abrogation bi mu def dafa remettre en cause espoir de stabilité n'est-ce pas de de de, transition entre guillemets en tout cas d'élection euh, transparente nous tourner la page des trois ans que ci fi mon mm-hmm. que lu doy yu metti yu fi mm-hmm. élection date issue euh, je me disais en trois semaines Sénégal qui ci benen benen phase euh, parce que dañuy am nouveau président qu'on est politique normale ça veut dire que vous attendez pas du tout à ce que le du tout du tout vraiment surtout bu ma xoolee un peu euh, les dernières étapes yi nga xam que j'ai trouvé ay étapes clés yu tax boobu histoire parce que sama histoire bi teguma ko rek ci yaakaar naa je crois su mm. euh, ko aussi dama suivre bu baax politique bi tous les groupes dañ koy faral def mm-hmm. maa ngi dégg démb ko ci euh, benn rajo mm-hmm. di wax naan euh, politique du métier gor mm-hmm. booy politique Euh, moytu boo dee dem safara et cetera ma ne bien te kii wax loolu xam politique la nekk ak ñoom ma ne ah, kon loolu la mais d'accord ak moom foofu parce que justement ku ko def métier justement politique du métier vocation la engagement la waaw boo ko defee métier euh, ba sa lépp nekk ci loolu sa zone de confort yëpp nekk ci loolu bëggee yëngal es bi nga toog rek jaral lu ne waaw bu dee loolu la waaw mais foofu la juumee mais euh, report bi Euh, dafa bête parce que boo xoolee étape clé yi président Macky Sall siège ONU ba mu fa demee. Mhm. discours bu équilibré boo xam ne ci politique ci président africain yi fa jaar yëpp pour man moo fa wax discours bu gën responsable gën équilibré Dans les sama que ñu ngi ci jàmm te woon jóge woon nañ ci etna dinaa organiser calendrier électoral normal je ne ferai pas moins que mes prédécesseurs et que euh, après ma passation le 3 avril xaw bu normal dem doxi sama yenen dox la ñëw itam ci réew fi déclarer déclaré lolu donc je me disais non là mom li mom tout bouger quoi donc vraiment je me nak ñu né le président day def adresse nationale ma gis loi bi fenn lolu ma gis né à partir de conseil constitutionnel bu ñu defee ba valider la liste des candidats loi bi verrouillé na ko même président mënutu ci wax ba pare ma ñu né président de def adresse nationale ma wax ko benn waay bu ma doon waxtaanal mané ko amatu lu muy wax sax mané ne ma non ça peut être quelque chose bu bu sérieux bu engagé réew mi euh, mané ko aha ah, mané ne ko en tout cas du doon ci processus électoral parce que lolu mënut a wax kooku ne ma non je ne pense pas mu wax ci lolu ma woko né ko ah, gis nga donc foofu foofu la amé mbetteel. ndax yaakaaroon ne motif motif yi mu soulever euh, jar na ko le fait que ñu jiiñ corruption li nga xamné moy ay juge assemblée ak mbirum histoire nationale foofu lu mu fay tontu. en tant que mandu bi nga xam ni man dama ko war a feeñal en tant que imam valeur éthique boobu mandu euh, te bokk na ci mandu mooy lu ci nekk nga xam fi nga ci yem yow ci xam-xam laaj ña la ca gën a xam loolu bokk na ci mandu euh, xaabaabal lu ne nga wax ci lu ne nga ne maa ko gën a xam ñëpp euh, loolu bokkul ci mandu kon tamit li ma mën wax ci affaire aéroport bi ak yooyu naa wax sama conviction li ma jot a xam man ci loi bi gëstu ko lii ko sama bopp samay propre li may déglu ñi nga xam ne ñoom dañ cee géeju ñoom jàng ci ay at def ay agrégation ay doctorat ma déglu leen kon li ma convaincre li ma convaincre ci loolu mm-hmm. fi ma toll nii gi soumani ni tegu na ci motif ni nga ko waxe ci ay lay dër yu dër gis na ni teguwu ci donte comme limu wax non ñaari ay tey dig ay ay jour garde vue ak ay bracelet liberté dam lay wax ben je ne suis pas sûr affaire u mandu daf ma daf ma ñor trop comme ni ma la ko waxee imam là je dois transmettre aussi des aux jeunes buguma daanu ci man limay dénoncer dénoncé mais la des années mag ñi ci réew mi fi nek ni di sétane xalé yi duñ leen wax li leen wara wax duñ leen orienter c'est vrai que tam xalé yi neexu ñu orienter parce que dañuy toroxal mag bon mais loolu la bu ko dé euh wardini mais dama lay jox ben exemple li tax ñu woko dig ba téye ko mais tay ji Karim wad déclaration il la def yu depuis 2016 mm-hmm. est-ce que nga ni Karim bu ci Sénégal ak li am manam wacc fek invité ko ñuy def ko def Wardini je suis pas sûr mm. je suis pas sûr donc Wardini amagul euh, euh, un peu métis sangam euh, amul loolu la ma gën a niru quoi bon kooku benn question la. Mhm. Mhm. question bi nii bi ma déggee d'ailleurs président Macky Sall ci déclaration tudd ko dafa ne rek y a une candidate boo xam ni. c'est c'est le dénonce de la farce parce que Wardini kaam c'est après la validation des listes. tout à fait kon bu ko dugalaat ci biir processus bi. ñaar moom am comme dafa fekk conseil constitutionnel valider cette liste ba pare te amuñu information que ni avons candidat à xamni euh, nationalité la am kon légui du problème problème que lan n'est c'est pas au président de dire que en tant que le le le le prétexte à l'acier de mesure pas c'est pas au président de dire en la est gardien de la constitution pour qu'il y a un candidat qui double nationalité il faut que je le dise. non c'est au conseil constitutionnel kon conseil et c'est facile moi, le conseil constitutionnel refait euh, une une session extraordinaire pour ce cas étudier y élément des suñu qui ni effectivement double nationalité et que sont ko parce que dafa déposer yo xamni ay faux qui n'ont pas pu vérifier et d'ailleurs ça c'est un grand problème euh, ah, d'ailleurs après élection il peut-être nañ ci parce que cette affaire de double nationalité là il faut se poser la question comment se fait-il que le conseil constitutionnel n'a pas l'information que d'autres ont sur un candidat aussi, ah, ça veut dire qu'il y a des... dispose des documents. Il y a des problèmes de vérification, alors. Tout à fait. Okay. Mais, quand ça veut dire que le conseil constitutionnel, à la def nañ seen liste mhm. am na cas boo xam ne signalé ko Légui nak kon jëlaat cas bobu discuter wat ko seen biir bu ñu ni effectivement y a des éléments objectifs yu wone ni double nationalité da mhm. ñu wax né pour le cas de Wardini effectivement génne nañ ko ci liste bi Lool jarul président di di ci reporter émission euh, euh, di ci reporter élection premier parce que amul prérogative bi ñaarel ba ñi am prérogative